asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi alterné 25 octobre 2021 la may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu te seetaan yëglikaay yi li ñu li tey ci alterné. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 25 octobre 2021 dañ ñëw ak yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy dooreeti ko yëglikaay bi di sunu lamb nag moom tey fa mu xëy ñëw ci xëtam mu njëkk maanaam daal li nga xam ne amoon na bërki démb ca Pologne mu doxoon ci diggante Bombardier ak ka nga xam ne nii moo doon Maris mu mel ne ki nag combat ba moom yàggul tewul 18 secondes daal lañu bëre maanaam fukki seconde ak juróom-ñett kii di Bombardier daal yëglikaay bi na daal tuuti kon dey mu ñàkk ba kanam nag loolu daal la sunu làmb tey xëy daal di ko ne waxee mel ni ki Bombardier daal ba nu ko dóoree la nga xam ne ni moo di arrêt droite ca masoire ba daal ba mu daanoo daal maanaam. comme aw xob wala fëy yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ne ki noonu moo tax nag yëglikaay bi ne na maanaam arbitre ya nga xam ne ñoo doon arbitré combat ba ku yebu gërëm leel ndax nag ñoom ñoo sauvé ka nga xam ne moo di bombardier moo tax Malick Thiandoum dey la mu xëy di wax moom mi nga xam ne mu ngi ci làmb ji Thiandoum bu TFM daal nee na boo bëggee dégg dëgg daal sénégalais fi mu nekk daal ah war nañoo ragal nag ci mbirum Bombardier maanaam itam ak erreur yi nga xam ne def na ko moom Bombardier daal wax na moom ci boppam nee na moom moom daal li ko dal bokk na ci maanaam li ko ko yóbbee erreur yoo xam ne def na ko ci biir la nga xam ne moo di combat bi mu mel ni ki nag fa nga xam ne moo di Sénégal wala fii nu ne muy Sénégal ki fi tëgg kombaam di nga xam ne moo di Gaston Mbengue moom ba mbir ya amee maanaam te ku ne xam ne ne kaw dañ naan ay ñetti weer da nga ko am dootoo bëre yu mel ni ki noonu te ku ne xam ne ne Bombardier ak mois de janvier la ñuy bëre wala waa seen seen seen daal Gaston wax na ak ñoom dana leen ñoom boo bëggee dégg dëgg fi mu nekk nii daal ñoom ñoo war a xool nag seenam taxawaay ci mbër yi ak nañuy defee MMA ba ndax Gaston Mbengue daa jàpp ne ñoom ñii di mbëri yi kenn ku ci dem daal di jongante MMA kase fukki million sax doo ko am moo tax nag Gaston xëy na daal wax ca mbir mu mel ni ki non mel ni ki daal boo bëggee dégg dëgg daal lool moom tey yëglikaay ba ñëw na ci bu yaatoo yaatoo yaatoo ñii moom lambi Sénégal lañ doon bëree MMA muñu bëri door lañ doon def fii ci stadium Iba Mar Diop muy diggante général Malika ak ka nga xam ne moo di Fils de Balla yëglikaay bi na soo bëggee dégg dëgg daal kii di Fils de Balla daal la ñaan maal ma ne moom la def général Malika ci ñaari minutes yoo xam ne tegal na fukki seconde ak juróom maanaam daal bëre ak moom wër ko ndombo di ko dóor ba na mu ko daane yëglikaay ba xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne Ibrahima Diop lañ koy wax borom Kajoor production moom na taxawal na combat boo xam ne daal combat ay xale la mu ci diggante Njaay Tine ak baay Baye Mandione Junior ma ngeen xam tamit muy rakki Baye Mandione mu caaroy mu mel ni ki daal loolu yëglikaay ba ñëw na ci keneen koo xam ne taxawal na bés muy ka nga xam ne moo di Sidi Jaxate fa nga xam ne moo di ca Thiès ci dimanche ji nu jëm la 31 octobre wara dox ci diggante Ousmane gaal ak ka nga xam ne moom moo di Alaaji Gaynde yëglikaay ba ñëw na tey ci lu mel ni ki noonu moom tamit dinu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee record la nii dem mu mel ni ki nag record itam ñëw na ci Bombardier daal ak ku arrêt ba nga xam ne wala boog arrêt droit ba nga xam ne door nañ ko ko mu kawote Bombardier daal bu bëggee dégg dëgg moom ci boppam waxal na boppam ne na moom daal erreur ba mu def nangu na ko waaye li am ba des daal maanaam ku bëgg a seetaan diggante général Malika ak fils de balle ruq-ruqaan yaag ya sew ya ca am yépp boo yeboo nga dem ca intégralité ba nga xam ne mu ngi ca Equivox TV waaye tamit beneen combat boo xam ne tamit taxaw na di ay combat espoir ka ko taxawal nag jigéen la ñu naan ko Fatou Balla mu war ci diggante Boy Sil ak ka nga xam ne nii moom moo di Clémenceau boobu combat tamit taxaw daal def na ko loola tamit mu fa nga xam ne moo di ca Equivox TV. kon dégg ngeen yëglikaay yi moo xam sunu làmb la record Equivox lépp loo xam ne daal amoon na ci weekend bi ci wàllum làmb indil nañ ñu ko mu mel ni ki nag damay nuyu ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm waaw. waaye nag li nga xam ne tey moo gën a fés bokk na ci li amoon samdi doxoon ci diggante Bombardier ak ki nga xam ne moo di Marius waaye bokk na ci loo xam ne amoon na ci dimanche ji tamit Fils de ball Balla général Malick loolu lépp nekkoon ay combat waaye bu dee ba su Bombardier la nag moom mu nga amee woon ci dëkk bu ñu naan Pologne ca côté Allemagne nga foofa sori na waaw combat MMA yëglikaay bi gis ngeen noonu ci ecran bi ku arrêt droit bi nga xam ne moom la Marius dóor Bombardier ci maswaar boobu moo ko yóbbu teer mel ni kii nag bi loolu amee ci la kawoote yomb bi mu kawotee nag ah wax dëgg yàlla man bi mu xoolee image bi mu ko njëkkee ne tàkk dama tiitoon parce que li tax mooy bi mu bi mu kawotee tëdd da ngay xam ne kii sori mais donc ñi nga xam ne ñoom ñooy arbitre yi daw nañ def seen liggéey ba nga xam ne nii yàlla def mu yeewaat parce que des fois dinañ la laal foo xam ne foo jaar xëm mëne su ci dara foo faw mu am waaw mais bon loolu nag mooy sport tamit moom Bombardier tamit li am solo mooy moom nangu na ko moom en tant que sportif nangu na li ko dal parce que gëm na ne sport yooyu daf ci faral di am waa bien sûr parce que koo xam ne depuis avant 2000 yaa ngi si sport di ci yëngutu ba tey bañ naan am nga 45 ans kon ça veut dire que moom am na mérite moom Bombardier méritu lan c'est un grand sportif. waaw sport de haut niveau la Bombardier yàgg na di jongante bitim réew ci yeneen sport sax yu bokkul ak MMA kon tey bu demee nii ah li ñu mën a def mooy encouragé ko di ko xamal ne ko daal Sénégal yëpp ñu ngi ko mais nag malheureusement demoon na fi gagné waaw mais gis nga tey bi mu génnaatee ni mu demee waat lii mooy àddina waaw c'est la mais nag bon am na ñoo xam wax nañ ci kanta Bombardier ak itam taxawaay bi ak ni mu mel est-ce que at yi nangam sangam yooyu yëpp daal li ma ci mën a xam mooy moom mi compétir moo ñu gën a xam boppam moo ñu gën a xam boppam waaw waaye nag sport de combat moom dafa nekk lu nga xam ne dafa dafa metti surtout MMA bii MMA bii moom lu mett foo xam ne yow da ngay weq da ngay dóor nit ki day tëdd sax bal da ngay dóor si kanamam ah ku ciy dugg na ko xool de lu doy waar la gason Mbengue itam wax na parce que nag comme kawo bi ni mu amee te dañ naan wax naa nit ki su kawote ak yooyu est-ce que du toog 3 mois yooyu mooy ne Gaston moom ah loolu moom du ko dégg nangu ko sax dégg parce que jàpp na loolu kuy xalaat naan combat Balla ak Bombardier menacé am menacé wu nag yi jafe ne da wax li neex rek gis ngeen ko noonu Père Gaston koy nuyu di ko ziar waaw yemu ca nee tamit CNG na jël ay la nga xam ne ni moom moo di ay responsabilité ci mbir parce que nag jàpp na ne lii est-ce que mënta yeneen heure am ci MMA sax sax kase wu 10 millions ah doy na waar waaye xam naa ne parce que bon signé benn contrat fii signé waat fële c'est possible waaye ah am na yoo xam ne daal war ko xool lu xoolaat li Gaston jar na xoolaat waaye nag néewuñu kenn bul defi MMA déedéet parce que sport la ba nga xam daf lay ubbi leneen port ci àddina bi nga ëpp indi la beneen xam-xam na gis nañ Ama Baldé bërki dem mu signé ci club bi gën a mag ci MMA ci àddina bi loolu yëpp ay avantage la waaye nag ñoom na naan nañu jàng bu baax a baax a baax MMA bi parce que tubaab yii day ah dañ leen di jàng de ndax li am bërki dem koo gis xam ne am njàngat am na ca buñ fa jógee feneen fii ñuy dem mooy fils de Balla général Malika seetaan ngeen vidéo bi biig ci Equivox TV suñu làmb ñëw na ci tey foofu tamit combat bu doy waar a fa am parce que ñoom ñaar seen combat defe naa est-ce que deful na trop ñu di ko dox mu taxaw mënuñu koo bëree mais corona ñëw na fi mënuñu koo bëree ñëwaat fi mënuñu koo bëree dem ba di ko waaj a bëree ba mu des une semaine xaw ay quelques jours seen euh, kii di fils de Balla am blessure ñu ajaat kombaa ba waaye yàlla mi nga xam ne dara tawu ko moom moom moo xëcc ci dem ba combat bi ñëw ñu bëree ko combat bi nag dem bi mu man bi ñëwee stade bi ma xoolee ñaari mbir yi la xam ne wax dëgg yàlla Fils de Balla mii ma gis tey ëpp liggéey ngi ci yaramam te du koon di nelaw de de la preuve loolu wane na ko ndax boo xoolee bi ñu dawee bi bi bi bi ñu dawee jàppante général bi mu jéem a dóore Fils de Balla dafa dem daje ji ak moom jëli ko bi ñu nag général Malika moom moom ci dóor bi la gënoon a euh, bàyyi xelam parce que boobu mu ngi dóor ay uppercut bi mu koy dóor nag ci la ko sa waay fàq mu rëpp mu daw wër ko ndombo ça veut dire que Fils de Balla daa mën a bëre te itam làmb euh, euh, boo dee xale bëgg ko di ko def am ñu lay tàggat nga jox ko cër loolu mën nga ko am te Fils de Balla mi ma gis ah gëm naa bu dëggalee boppam ci làmb tey fi Balla Gaye teg tànkam ci géejawaay ak ci làmb war na fa mën a teg tànkam parce que démb li mu def général Malika am na ñu bëri ñu bëri ñoo xam ne démb li am dafa leen a surprendre maanaam dafa leen a bett te defe naa loolu ah képp kuy jàngat bëri wala nga xam leen wóorul la bett parce que Fils de Balla am na ma niinu làmb te mbër la te xale bu ndaw te taxawaay macha allah te itam liggéey na kon te itam nag gëmoon na ne combat bii da koy gagné moom loolu la mës a gëm parce que loolu la mës di dégager ci làmmiñam di ko doxe di ko waxe waaw général nag erreur bi ma gis na def na ko ci biir combat bi mooy bi ñu dawee ne bi because kay jëlee au lieu que moom mu xool balaa dóor di am mu xool fa mu jàpp mais dafa jekki rek di dóor ay uppercut te jàpp goo fu wóor te boobu boo xoolee photo yi da nga gis que ni kii di eh, fils de balle moo ko féete su léegi moom féete na la suuf ba pare yow nga ne ci kaw di jéem a dóor ay moo tax bi mu ko fàqee dafa ñëw romb ko mu wër ko waaw wër ko di dóor dóor ba ba fu ñu mujjee mu daan ko kon félicitation à à à fils de balle mais a courage à général Malika loolu mooy sport ay xale ngeen yéen ñaar ñëpp ay xale ngeen waaw et puis tamit làmb ji li ci am loolu mooy tax làmb neex làmb ay xale bu ñu leen joxee combat dañ ko war a neexal jàppale promoteur bi Iba Iba Mar Diop démb ku fa ñëw di bëgg làmb wala sax mosoo seetaan làmb da ngay kontaan ba na mu feese balde ah macha allah tubaab bi sax rang ñëw sax veut dire loolu mooy avantage su promoteur bi nga jàppale ko ci communication bi waaye mbër yow bu bu la promoteur joxe xaalisam buñ la waxee nga ne nii nga ne naa nga ne naa sama Malick ak fils de Bilal wax ak fils de Bal wax dëgg yàlla jàpp nañ ci communication combat bi ba combat bi yegg niveau bi mu yegg waaw que le meilleur démb nag maire bi moo doon fils de balle félicitation keneen koo xam ne suñu frère la di Ibrahima Diop moom itam gis ngeen kera vidéo bi foofu ci Equivox TV wan lañ leen ko fa muy Ndiaye Tine ak Baye Mbendon Junior suñu lamb ñëwaat na ci tey ci photo gis ngeen ko noonu mu taxaw ak ñaari mbëri moom boobu combat muy ko xam ne tamit ah ñu ngi koy ñaanal yàlla dikkam boobu waa Kajoor production boobu yàlla na si yàlla teg loxo waaw ba mu yegg niveau bi ñuy dégg tey Gaston production ak yeneen structure yu mag yi ne ci dëkk bi parce que tamit xale la boo xam ne yàgg na ci làmb dëkk Pikine di ànd ak mbëru Pikine yépp parce que ko ko ànd ak Eumeu Sène ba mu déglu waa nga ko xanaa promoteur la nekk gan waaye lamb moom du ci gan Sidi Diakhaté tamit day ñëw Thiès waaw le 31. parce que wax na ko wax na ko vidéo baa ngi ci Equivox TV euh, di di ngeen ko seetaan mook fallu Ndiaye Fallou day nekk Dakar moom mu nekk Kajoor maanaam Fallooy tëgg Arafas dafa mbër Dakar dimanche moom mu tëgg Alaaji Gaynde ak Ousmane Gandigal ca Thiès loolu nañ ci bàyyi xel ngeen photo bi noonu usman Gandigal ak Alaaji Gaynde muy loo xam ne lu nar a neex la nar a doon loolu tey defe naa moo fi dikkoon record tamit ñëwaat na par rapport ak Bombardier ak kawo beeg yooyu Bombardier nag ko ah mais sa loolu mooy sport ah loolu mooy sport na li ko arrivé loolu mooy sport kon li ñuy def mooy remercier ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy safoo di ñu ndamoo di ñu bàyyi xel suñ soppe yi ñi nekk à l'étranger waa diaspora bi du leen mës a fàtte parce que tamit ñoom vraiment amuñu seen fay ñoom ñëpp ah ñoom ñëpp Ali Dia petit frère bu Bombardier nekk à l'étranger moom tamit maa ngi koy bëggee moom defe naa mu ngi ba France dafa may faral di seetaan lu baree baree baree baree bëri ba keroog ndeysaan mu ut sama numéro ba woo ma téléphone di ma encouragé ñu ñëpp maa leen di bëggee ñoom aadama Ndiaye Italie ah Ndongo Fall Italie hmm, Ngañ Sow États-Unis d'Amérique Mor Ndiaye États-Unis d'Amérique doom nday Lirou Diane suñu waajooju maag Lamine maa ngi koy bëggee moor Ndiaye ah di nuyu bépp ak ki nga xam moom mooy euh, Abdoulaye Mbaye taalibe Baye Niass depuis États-Unis Bazoka le grand champion fëgala ñoom ñëpp ñu ngi foofu ak ki nga xam ne mooy Jeylaani puis super jamono ñoom ñëpp grand champion yi nekk foofu Yékini Junior moom tamit mu ngi foofu mu ngi foofu actuellement ñoom ñëpp maa leen di bëggee mais tamit di nuyu képp ku ñuy bàyyi xel rek Adama Ndiaye moom du ma ko fàtte tamit mention spéciale Balla Gaye Portugal Dame Diop Afrique du Sud Seydou Côte d'Ivoire yéen ñëpp maa ngi leen di bége di nuyu tamit sénégalais yi nekk fii di ñu bàyyi xel amuñu seen fay ki nga xam ne nii nag moo fi jaar démb jaaraat fi tey mooy jib seen borom Peter seen moom ma woo démb mu ñëw mu ne ma tey li ngay demee stade reportage jib le 8 octobre nag la le 8 novembre lay def anniversaire kon maa ngi wax na ko sénégalais ñaanal ku baax la jib ba borom Peter Sène doomu ak yaay maa ngi lay ñaanal jàmm yàlla na sa anniversaire yàgg ñëw nga yàgg koo feete di la wax kontaan bu baax a baax a baax parce que nag Balde xam nga tàngaay bi ñu solal la tiset bi ak jiin bu mel ni mu ma solal démb kon jib te loolu du premier sax waaw li mu koy def bëri na ak ki nga xam tamit moom mooy taal bi sëñ kër si nekk fële ca marché Thiaroye Aliou Sall moom tamit bokk ci ñi may solal Rimka Couture du ma ko fàtte ah. Samba Kara taalibe maam Thierno moom tamit maa ngi koy bëggee bu baax a baax ndax moom moo xam moo tax ma xam Rimka Couture borom Touba Sandaga maa ngi bëggee ñëpp Ndiren Couture tamit maa ngi leen di bëggee nekk fële ca Rëbës en face kër ñoom Aline Kassé Miami côté poste Médine Balde di la wax jaajëf macha allah l'infatigable bëri nga kii trop waaye nag xale bu sawar nga te xale moom sawar da di gàllaajam xale bu yaroo sawar am kilifa boo nga bàyyi ko xel te xam ne ëllëg bu ko yàlla may fan wu gudd dana doon quelqu'un te fan wu gudd dinañ ci ci xale liñ ci yaakaare ci xale mooy ñu gis ko xam ne xale bu yaru la xale bu am kilifa la xale bu ami teggin la loolu boo ko saxoo rek ñaan day xel di jóge fu ne te doo xam ñi lay ñaanal ñan la kon yàlla na yàlla jàppale la di la jaajëfal di nuyu sa waa dëkk waa Mbuur waa Sali du mën a ñàkk ba beneen yoon